nañ la nga sol maillot Sénégal euh, numéro 20 Diao Baldé Keita mais métti wala li tax dugaluñ ko ci terrain bi monsieur. si métti nañu kay nañu trop trop mais xam naa ne booy gën a nekk si forme temps yi moo tax ndax blessé bi mu blessé woon temps si mun naa ko waaw mais comme ça waaye mu ngi mu ngi gérer moo ko gën a nekk si forme baax na baax na. waaw c'est vrai dëkk bi moom instant bi moom koo gis jàppal ni mu ngi sol maillot Sénégal même ku ko solul sax xamul ni bëgg na maillot Sénégal waaw parce que fu équipe bi toll la. soo seetee depuis 2002 lañ gëj coupe du monde tey jii nii 2018 yàlla def ñu qualifié coupe du monde ba pare équipe bi doon équipe bi nga xamante ni ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko gëm loolu noonu moo waral tey ñëpp ko gis muy sol maillot pour supporter équipe bi tamit. Euh, bon je suis sénégalais je suis euh, compatriote euh, je suis citoyen alors c'est tout à fait normal ma sol maillot Sénégal ndax ñun ñëpp dañuy supporter te gars yi xale yi dañu wone benn différence tey jii. Euh, dem coupe du monde non seulement dem coupe du monde mais également di di di di ñefe ah, dañu woon ni carrément dañu am jom moo tax ku nekk Sénégal rek war nga mën a sol maillot Sénégal. pour te dire depuis hier maillot sa instant bi dafa manqué dafa manqué bu baax a baax prix dañoo yokk et tout mais aussi je vois que jar na ko daal parce que Sénégal mooy suñu réew te comme suñu lion yi instant bi ñoo ngi euh, coupe du monde bu doon jaar 15000 sax nit ñi dinañ ko jënd. Sénégal euh, gagné na benn match contre Pologne door ko 2 buts à 1 euh, xalaat yaakaaroon nga loolu. si yaakaaroon naa ko waaw Pologne ñoo ko gën équipe. léegi keroog bii Sénégal di football Pologne nan nga doon def. kontaan si rek. Euh, kontaan dañ cee kontaan. waaw kontaan naa ci trop na dañ siy kontaan moom. waaw match la gis naa ne am na dal am na tey ca déggoo noonu waaw li gën a solo ci football. waaw wax dëgg yàlla ba. amoon nañ amoon nañ yaakaar ci victoire bi xalaatoon ni Sénégal même su même su gañewul sax dinañ dina nul mais défaite moom xalaatuñ ko woon parce que soo seetee équipe africain yi nga xamante ne ñu si bari ñoom ñu ci bëri dañ leen dóor seen seen premier match boobu noonu mu desoon Sénégal kese te dama gisoon ni ndaw ñi joueurs yi bàyyi woon nañ xel loolu noonu et c'était très important que Sénégal ñëw remporter victoire bi ci match boobu noonu même mu am résultat bu positif mais résultat bu positif laa gisoon moo tax victoire du ma bett. man j'étais sûr hein parce que booy dama leen wóolu depuis euh, seen match de qualification laa leen wóolu ba léegi et man euh, match yi sax intéressé wu ma man début final bi laay wax fi mu toll nii moom Belgique euh, moom moom laay wax fi mu toll nii. Sénégal mi ngi war a football ak Japon yaakaar nga mu dóor Japon. waaw da koy dóor de. Ah, ñaata ñaata la koy dóor. xam naa ay 3 rek. ay 3 kan ak kan mooy dugal. mais Sadio Mané yéene naa ko bi ah. Kouyaté Kouyaté tamit yéene naa ko bi waaw. ak ah, Mbaye Niang ak Mbaye Niang. waaw euh, Sénégal mi ngi fubalaat Japon est-ce que yaakaar nga mu gagné ko. ah yaakaar nañ ko de Sénégal moom yaakaar na ndam moom dinañ ko jël moom. kan nga euh, ñaata nga bëgg Sénégal dóor Japon wala ñaata nga yaakaar Sénégal dóor ah, man moom bëgg naa mu dóor ko 5-0 loolu laa dugal pour yow. kan kan mooy. mooy dugal ci 5-0 yi ban ban joueur bu Sénégal mooy dugal selon yow. Sadio Mané mun naa dugal. Ah, ak kan. ak Diao Balde mun naa dugal. Ah, ak kan ñoom ñëpp mun nañu dugal. si mën na ko dóor kay. mën na ko dóor score waaw ban score ngay joxe Sénégal mu door ko Japon. da ko door 2-0. waaw mooy dugal. kan ak kan mooy dugal. Lamine Sané mën na dugal. kan. ak euh, Mame Birame Diouf. waaw fekkee départ na waaw. waaw ah, ñaata ma yaakaar mu door Japon ah. ah am na yaakaar ci Sénégal moom parce que man Sénégalais mais am naa ci yaakaar daal moom. door ko ñaata. am mais am naa yaakaar daal dina door daal dama am yaakaar waaw. kan kan nga yaakaar ne mooy dugal ci jour boobu noonu. ku yaakaar mooy dugal waaw suyor yi Sénégal yëpp yaa yaakaar mais bu ma ci gën yaakaar daal Sadio Mané oh, ak Gana Gueye daal yaakaar naa ne waaw. donc 2-0 nga nga nga xalaat yow. waaw man suma bopp daal xalaat naa 2-0 wala 1-0 daal. waaw am naa ci yaakaar. ñaata nga ñaata nga yaakaar la koy doon. yaakaar yi mooy am naa ci yaakaar 2-0. mais 2-0 yi kan kan nga yaakaar di mooy dugal ci équipe nationale. ak central bi daal yaakaar naa dina dugal. central. waaw ak euh, Sadio Mané tey moom premier bi nag man war na noo jox premier bi tey. yaa bëgg a jox premier bi Sadio Mané. waaw war na dafa war sax dafa war. Japon li ñu ak Pologne bu ñu ko footballee ak Japon attanu ko way Aliou Cissé na teg la mu war a teg gars yi am seen jom ak seen fulla ñu gagné Japon Colombie ñu gagné ko poule bi mu yaakaar naa daal ñoo jël paie li ñu wane premier match bu ñu ko wanee xoolal ñoo jël paie. waaw loolu moom amuñu sax sikki saaka parce que soo seetee moo tax moo moo moo waral moo waral dëkk bi ni mel ni ñëpp ñëpp koo gis mu ngi sol maillot mu ngi supporté ndax li ñu wone suñu match passé moo waral ñu am yaakaar ni Japon aussi dinañ ko dinañ ko gagné ba comme score bi passé rek jàpp naa ni du dépassé du dépassé deux yi Sadio Mané war na mën a dugal pourquoi pas Mbaye ñaa dugalaat wala Mame Biram Diouf day dóor Japon waaye wax wax ma la dóor rek mais da koy wol da koy selon moi bon on peut avoir 2-0 parce que Sénégal biir mi dugal bëriwul bon Euh, euh, booy bi dina dugal Mame Mbaye Niang dina dugal ndax man mooy sama joueur ci équipe nationale bi et pourquoi pas bu dee Aliou Cissé dina indi benn changement ci attaque bi Moussa Sow bu ñëwee il est c'est un chanceux il peut aussi mettre un but. Mm-hmm. Eh, frère man je dama ni Sénégal match yi intéressé wu demi-finale laay laay wax fi mu si bien sûr mun na génn si poule bu mu nekk parce que tamit kuy dem guerre yi naan dañ may gagné voilà te 2 2-0 incha Euh, Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye mhm. si incha allah rabbi 3-0 euh, Sadio Mané Idrissa Gana Gueye et Mame Birame Diouf mais Sénégal bu soobee yàlla incha allah da koy dóor de waaw. kon yaakaar nga Sénégal jël pays ci biir plum. waaw yaakaar naa ko kay am naa ci yaakaar bu baax de. waaw mais Colombie Sénégal su gagné fii même contre Colombie man na match nii amul problème. waaw parce que day dugal ñeneen ñi ne noppalu ñu ñi daw ñaari match yi noppalu. Euh, euh, yaakaar nga Sénégal jël pay ci poulam. waaw mën am de moon na am de chance rek chance rek mais du ma dem rek du ko jël mais chance daal waaw. na koo jël kay waaw poulam kay moo si man Sénégal moom moo mën mooy meer kay waaw. mais classement bi nga xam ne defoon nañ ko contre Pologne ko Pologne euh, match bi passé kontaan nga ci. classement bi macha allah bu leen jàppale si classement bi moom macha allah mais dañ doon war a jàppale toujours defar leen ko baax na macha allah mais des na tuuti quoi. non non mu defoon baax na baax na trop waaw ñu bàyyi Alfred Ndiaye rek musée waaw ak Gana Gueye ni ñu terrain bi daal baax na trop waaw mais suñu latéral bi tamit day voyage rek wage moom tamit waaw ñu wax ko mu taxaw quoi. Ah, am na surprise ci man waaw surprise même sax même bi football bi mu football dafa am surprise ci man donc yaakaar mu ne vraiment dinañ déggoo noonu daal club bi am noonu. ok mais yaakaar nga ñu continuer classement boobu ak rythme bi ñu doon footballé. waaw bu changement yi bari li du bari parce que ku mel ne waagee dafa war a dem ndax ñee danoo gaaw mais parce que foog tamit mu wàññi joueur yooyu yu am yu am poids de trop waaw parce que boo dee équipe bu ndaw joueur yu gàtt yoo xam te dañoo am vitesse foog nga dugal ay boy yoo xam tamit dañuy mën a am vitesse comme ñoom comme comme ñële quoi. lan ngay dénk Aliou Cissé ak ay jouram. Aliou Cissé li ma koy dénk li mu wane woon rek na ko wane waat fulla ak jom ak fayda gars yi gagné képp amul ay Sadio Mané amul ay Kara Mbodj amul kii na ñëpp yem. manko nekk benn amul kii mooy numéro 10 amul kii mooy numéro 1 bu ñu ko defee rek dañuy gagné. parce que bu ñu bëggee siiw rek wala ñu mel nu ñu war mel rek nañ dépassé parce que am na fi ba jàll bu ñu bëggee dem fu sori nañ dépassé 2002 heure bu ñu dépassé 2002 rek maanaam danañ egg demi finale 2002 yem na quart de finale loolu daal laa leen ñaan def jom. bon Aliou Cissé li ma koy denk euh, bëriwul cest dire euh, fulla ak fayda xamee nañ non connu mais aujourd'hui qui qui qui est à la tête nationale bon li ma koy dénk bëriwul xam na li fa nekk dem na fa demaat fa ak U20 yi donc du coup euh, yàlla na ko yàlla jàppale mu def jom rek indi ñu coupe bi. waaw tey su ma doon conseillé lion yi Aliou Cissé coach bi ak ñëpp staff bi ñëpp daal su ma leen doon conseillé mooy saa que chaque fois chaque match ñu optimiste booy bañ a jël benn pression xam ni lii coupe du monde la foo la la. mais tout en gardant l' esprit que ni sénégalais yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di supporter parce que sénégalais gëmul défaite victoire rek la gëm loolu noonu daal laa leen conseillé ñu bañ am benn pression mais ñu ñu xam ne sénégalais ñu ngi seen ginnaaw ñu dem ak jom ak fugu jom comme 2002 ni ñu doon demee jom jom jom boobu nga xam ne si xam si doomu Sénégal xam ko si doomu Afrique ñu demee loolu noonu man daal lool laa leen di conseillé. teey dal ca xam ni si benn match lañ joué gun dafa des da nga jël match par match. football loolu la boo jëlee tey match bi fàtteel boobu nga siivaraat beneen bi ci kanam jur sax ngay xel ko ne kon du kon bi moom bi basé wal ci ci ci sàmm boobu pare rek boo génnee ci boobu nga soo xool benn par match match la waaw ma leen di dénk rek pour pour ñu gën a kii daal xam ne daal Sénégal instant bi moom bii moom bi moom moom buñ ko ñàkkee moom xam ni xam ni ñàkk nañ Sénégal quoi Aliou Cissé mu gën góor góorgóorlu quoi macha allah moom ndax mu ngi ñu jàppale quoi waa Sénégal quoi waaw man maa ngi leen di dëkk loo xam ne nañ góorgóoru rek xam nga gën a am jom rek am fula parce que fu mu ne nii ñëpp ngi ñoom lañ yaakaar daal nañ def lu ñu mun lu ñu mun rek lañ ko def léegi yow euh, ku ci gañe di may amel nga ñëpp màdd bu Sénégal gañe waaw waaw Sénégal bu gañee ñëpp laa amel màdd kay <laughs>